Sénégal njaay gi la day ah am na problème mu wér-gu-yaram am nag dëgg la termine yéene kaay ne gis nga ginnaaw corona googe waaw grippe aviaire ba waaye dama ne la fièvre jaune nga nag mar itali ay la réew maa ngay wàcc laa wax dama ne la fukki weer ak benn ngi ni la ginnaaw bi ñuy xeex nag wàllu mbas mi ah, ak wàllaateem yu bëri soowee taasam yu bëri ak ni du deem ñu bëri ñu lée te jamono jooje waaw nag fi mu nekk ni lée ñuy wut ay saafaraak yooye la grippe aviaire ba dugg jàngoro ji nga xam ne maanaam day daaneel ginaar yeeg ñoomin seen waaw njàmbataan nga dugg dama ne la fièvre jaune bi lée waaw gis nañ ci lu ci tolloo juróom-ñett ci ay doomu aadama te ñaar ñoo ca dee inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ah maa la ko wax dama ne la kon wàllaate gi gaaw na lool dee gi gaaw na lool te ca jamono jooje personnel médical ba ca boppam daa mujj débordé yéene kaay dee média gi ne gis nga la ci fi mu nekk nii ko bi daa ngi file corona ga grippe aviaire gaa nga fee di daaneel ginaar ya dama ne la fièvre jaune baa nga fële taxaw allahu akbar le soleil yéene kaay ne gis nga fièvre jaune waaw ngir ñu xeex moom day leen ne lu tolloog juróom ñetti téeméeri junni ci ay doomu aadama day danañ leen pikiir fii ak fukki fan juróom ci weeru février lay tàmbali laa la wax Mamadou Lamine Diallo day ci direct news ah ne gis nga Sénégal njaay gi lu ci tolloo juróom benn fukk ak juróom-ñeent ci ay lal ngir kaa grave yi lée te xoolal ñeen fukk ak ñett yëpp ci Ndakaaru njaay gël jóob la nu laaj ma Rwanda ñaata lal la am dëkk Paul Kagame lu tolloog juróom benn gestion bi waaw waa Togo day Togo Afrique sow jant gi lée ñoo jël pee Afrique ba mu daj ñoo jël deuxième waa Sénégal moom fan la féete critique yéene ne te gis nga réew mi fi mu nekk nii mbas yee ñu a bëri nag corona gang grippe aviaire gang fièvre jaune gang sursaane gis nga fièvre jaune googee waaw bu ñu gaawulee jóg ci tundu Tambacounda ak lu ko wër gale lu tolloog juróom-ñetti téeméeri junni ci ay doomu aadama seen bakkan ca xottu gerte daa la wax enquête yéene kaay na ñëwaatal ci corona gi ak école bi nga xam ne kon dafa manqué ay jumtukaay laa la wax jamonoy mbas mi ah dañ ne woon élèves yi dañuy toog ñett wala ñeent waaye école yu ci bëree bëri amul ay jumtukaay laa la wax demal ma ca Saare Gille 3 am na fa ñaari classe ca Tambacounda waaw nga xam ne élèves yi ci suuf la ñuy toog yaa jum wala maa jum maa la wax loolu de ci suuf lañ naan répp toog xoolal ma mbuur gi mbuur ñu naan ville la waaw ma nga ak ay sàkket ba léegi nii la ay abri provisoire allahu akbar Mamadou moom lañ commandé lu tolloog juróomi kaay ne waa FNR syndicaliste yi ah nee nañ gis nga vacances nga xam ni kon nañu koo jël day dañu koo war a yokkaat laa la wax loolooy dëgg de loolooy dëgg de nekk nii di mbir mi doona war laas ne weneelug mbas day mooy menacer Sénégal de fièvre jaune wala le quotidien yéene kaay vox populi ne déggoo leen ma de dama ne juróom-ñetti kaa am na ca ñaari doomu aadama ñoo ca dee allahu akbar source aane dama ne la jinne may mu naa ngay wàcce université étudiante yi ña ngay daanu laa la wax allahu akbar ñeneen na ngay daanu de sur quotidien waaw faux policier faux gendarme faux magistrat ay hors la loi yu doxle lañu la la wax libération yi rek ane maître mussa Diop ak Dakar dem dikk waaw c'est la guerre totale la ilaha illallah ndax ca ginnaaw ordonnance suisse ba day maître Moussa Diop waaw ma ngay teg loxo na contre société nationale bi lé Dakar dem dikk waaye Dakar dem dikk tam na ngay contre attaqué day yóbbu ko ca kanamu président tribunal ba dama ne la bun xataab si la ak maître Moussa Diop waaw février bii lañ leen convoqué Union am na njiit lu bees Dakar président en exercice 2022 2023 Macky Sall nag kon wàllum leadership am day daal dinañ koy confirmer direct news la ci boppam waaw daa war a yëkkati yàppi kon dóor ko ci kaw ki nga xam ne moom moo def loolee statut ancien ministre la mayu ko muy manqué de respect takk la moom Aminata Lo Dieng day altine lañ ko jàllale tey moom procureur waaye Aminata Lo Dieng mi lee dañu ko humilier toroxal ko def ko lu ñaaw boole koog askan wi la enregistré ko te enregistré enregistré nit ki ah, ba de ba njiitu réew mi daa mer bay bëgg a dee laa la wax ndax liñ def Idrissa Seck moo Njaay Cissé ONG 3D ci tribune yéene kaay waaw nee na Seynabou Njaay Jaxate njiital of na ci boppam kon moom moo war tekki ndomba tànkam laa la wax wax box boobu li ne de pourtant ñoom waa of na day seetal nañ seen bopp wicc wicc wicc wécc ndaxte nee nañu ña nga xam ne maanaam ñoo nekk ca bureau boobee ñuy jotee déclaration de patrimoine yi day nekkul na ñoom ñooy siiwal lii déedéet le tee mooy yéene kaay ne waaye est nekkul ne ay jege ñaale Macky Sall di waa nguur gi ci boppam ah ñoo tasaare déclaration de patrimoine Idrissa Seck bi lee lii kat moo ci am intérêt parce nag am na ci ñoo xam ne ci nguur gi la ne àndaatu Macky Sall ak Idrissa Seck gi lee dencee mera mera mera mera gis nga wàllum politique boo ca déggee wax walaay lu dul yàgg lay ne en politique la trahison est une question de temps ay observateur di ay seetlukat yu bëree bëri dañ ne li wóor ba wóor mooy nguur gi kese moo am intérêt weer Idrissa Seck laa la wax box boobu man kay maa lay waxal tey alalu Idrissa Seck ji lée nee na ñun Kajoor moo moom si campus ba boo ko xaymaa toll na ci ñaari millions de dollars éwoy Samba ak benn terrain bu ëpp ñaari Saare nee nañ Aba moo ko ko may eh way Samba Idrissa Seck am na tam beneen kër ca quartier Mbour de ke jigéen a ma fa ne ca tubaab jalaaw ke dallu waayam wa fa la jaayoon ko Ablaye Wade gañe nguur gi Idi jëndaat ko eh way Samba ca taatu géej waaw moom Idrissa Seck mi la nee nañ amaat na daanaka cent hectares boo ko xaymaa toll na ci ñetti milliards ilaha illallah ca Banja département bu Idrissa Seck 2010 daa jaay këram nga la résidence les cristallines ca Saligué Ahmed Khalifa Niass la ko jaay 450 ca la jëndaatee tund woowu ci Ndakaaru Njaay jël gi la nee nañu Idrissa Seck gi ci point e moo ko moom Idrissa Seck ngeeg ñaari hectare fii Mermoz ci booru géej te nee boo xaymaa kon loolee toll na ci ñaar fukki milliards allahu akbar la ilaha illallah bii ci Mermoz toogaale na <laughs>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 sur Apple Store et Play Store. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.